kon buñ ko fooyee Mesdames, Messieurs, mes chers téléspectateurs, on est jeudi. Bien sûr, jeudi 18 août, ici à Sénégal. Mesdames, Messieurs, cet artiste, il est venu sur la toile a pas longtemps. est en train de défrayer les chroniques et toutes les chroniques. Je vous le dis et je l'assume. billahi ces soirées on dirait les soirées de Wally Balago Seck on dirait les soirées de Sidi Diop toujours il est en guichet fermé mesdames et messieurs mes chers téléspectateurs Il répond sous le nom de l'international. Il est capable de vous donner le maximum de plaisir et d'ambiance. Mesdames, Messieurs, Médina est en train de nous suivre ce soir ou bien même aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, Dakar Plateau. Mesdames, Messieurs, Ouest Foire. Mesdames, Messieurs, les amis, les habitants de Dakar et un peu partout nous regardent. Voici l'international, Ndiaye Diatta Il répond sous le nom de Youssou Ndiaye. Regardez la tonalité de sa voix. ngeeña bala may sa joor caam ngeeña la baabel demba caam doomu yaayu maam njaay joor loo koy bin bin yaay bin bin yaay joor caam ngeeña la wel joor caam laay woy ngeeña bala may la kii joor caam la joor caam daf maa bëgg doomu yaayu ba du la joor bu dee jooy wax ma loo koy naxee xësa bin bin yaay bin bin yaay man da bëgg naa joor ci am ngeeño bala mañ la ah ma ne ko joor bu dee jooy wax ma loo koy naxee di jëkk saa waaw danga kaa wax bin bin yaay bin bin yaay mooy borom urus joor bëgg naa ko loolu lool sama xarit la doomu yaay badd si la ba da yaa bëgg joor ma bëgg ko ay bëggante la. lu ma yaakaar mu tas. maa ngi commencé ñàkk ci fii am na. lu ma yaakaar mu tas. dégg nga gërëm gaa nee na mu yaakaar mu la yaakaaroon artiste bu mag te xamul ne artiste bu mag nga. waaw ah. artiste lañ nag. artiste nga de. yaa cool maa ngi cool di la bëggee rek. yaay ngi siyaar. di la ñaanal jàmm. amiin ñu lay dégg fu ne yow da am da baax. di yaatu. wallaay dëgg la. ngay booy bu baax. Mm, di la suivre di la ñaanal. waaye Youssou ma bàyyi la nga nuyoon teg téléspectateur yi ba noppi. maa ngi nuyu àdduna di nuyu ñëpp di ñaan jàmm yàgg si senegal di ñaan jàmm yàgg yàlla na jàmm yàgg. mais Youssou lan nga sol nii. lii yëre artiste rek la. kaay nii Youssou. lii brodé la wala wala lan la. lii tise la suñu suñu xarit moo ñu ko jox Émilie chaque soirée moom mooy xottil. mais Émilie Amélie Amélie joxu la cër de. na la parce que lii ma la jox nii kenn xamul lan la yaa ngi mel ni ku jóge Inde ah. dëgg la. ah mais lu tax nga koy sol. am li jox cër. waaw ah. waaw ah? ah. mais mi ngi cool. mi ngi baax léegi sénégalais yi am na ñu la xamagul dëgg la ñi xam bari na ci Medina dafa am ay extrait yu ñu leen wan ba pare yow Youssou nga sol yeneen yére wala lan la nii ah? ñaata yére nga sol. bëri na rek. yére yi nga sol kon du benn. da bëgg ni yow kon sol nga yeneen yére. waaw ma jàppale la nga simmi ko waaye Youssou bàyyeekul waaye dafa mel ne yow mosoo ñëw télé nak nu mu demee ni wala fi nga jaaroon du télé Youssou lii lan la noo xaaral bii ban moom. mais deux PS mais Youssou tàngoo. tàng naa ko. Youssou Ndiaye. xësa. yaa ngi cool. maa ngi baax. Youssou mais Youssou lan nga sol nii. Eminem. ah Eminem. Eh, lii mooy Eminem. léegi taxawal ñu waxtaan ak Eminem bi xaaral ngay laaj say say ñu teg benn ah. ci am. Youssou yaa ngi rey nit ñi ci téléphone bi ah. mais yow yaa ngi maa ngi baax rek. yow lépp ñëw na. sëñ Fallou rek. yow lépp ñëw na laa. lépp ñëw na. nice ok. Grégoire. léegi Grégoire nee na nga wayal ko ci bit bi avant ñuy seet say œuvre taxawel nii ni ma taxawee voilà c'est bon xoolal caméra ko ci bit bi nga xam ne tegal na wayal ci bit bi loo mënu wa mën a wayal saa waajee taaru jigéen sëy la xasa jigéen mooy suñu yaay booy woy naa la nit ku baax du ñàkk noon kii mooy dëgg xasa daa nangoo liggéey woy naa la nit ku baax du ñàkk noon lu tax mu bëgg la fajar nga xëy liggéey loo deful baaxul yaay borom émission yi neexi doomu yaayu ndey xadee bëgg naa la lool lu ji lu ji si yow soo baaxee sa yaay a tax xësa doo sonnel bañ lay ëf ba nga fay bur yàllaa la taal doo fay xësa yaay suñu lumière yàllaa la taal xuusal sa yaay liggéey loolu si sa baay xësa man da bëgg naa man de bëgg naa la sama waa suba da ngay xëy baax taalibe sëriñ bàmba bi bul tiit bu ragal réew mi bàmba kam moom même réew euh, Youssou naka ngay def ba soir ba moo lay ree mais mani naka nga def ba sa di fees Youssou Ndiaye nit ñi lan lañ la toppee yow. dara liggéeyu yaay rek xam nga moom. liggéeyu yaay waaw yaay ba la ñaanee loo boo suyee jox ko. waaw léegi dañuy xool su da ngeen yaakaar ni kii man dama ko invité nii xool leen kii ni muy def soirée yi fii ci dakaar Dakar regardez gërëm ñu xool. jaay mooy bégal xale yi léegi gërë quoi. mais Youssou tu es beau ah. rafet. waaw. waaw rafet kañ. ah jaataal nga de. waaw et eh, Youssou yow naka nga def ba feesal soire yi c'est quoi le secret véritablement de Youssou Ndiaye lan mooy si secret ba soirée yi nit ñi di la wuy si ni lan la. yëg nit yi rek àdduna moom boo yëgee nit ñëpp bëgg la. mais Youssou yow woyoo lu tax nit ñi di la bëgg de xam nga ko. xam naa ko ah xam nga lool. damay bëggal gars yi rek. mais ci nan nga leen di bëggalee. di def ay ambiance rek. di déglu ñoom Kara rek lu ñu wax jaaral fii jaaral ma topp gars rek ñu teg ma si piste. ñoom Kara ñoom it am nañ temps ah. may jàppale rek <laughs> fajar topp la. sama waay mais lan nga def ñii laa wax. dara samay waay lañ rek mënoon nañ ko defal keneen ñu defal mook ay waay lañ dañ maa bëgg rek bëgg ma dooleel rek ma dem sa kaw. yow da nga yaakaar danga bëgg dem ci kaw. de damay dem ñoom rek laay déglu ñoo yar affaire yi de. <laughs> yow foo bëgg yóbbu musique bi. musique bi dinañ ko yóbbu bu sori ba yóbbu yaay mu dem ziyaare na bi ah dinaa ko sori ba yóbbu yaay mu dem ziyaare na bi ba yóbbu sama yaay yaay ngóone mu ziyaare ñëw pour yàq musique bi nga yaakaar yàq moo ko de da nga ñëw pour defar. waaw ah, war a am. mais léegi ok may nu ñetti son rek ci yi ngay ubbee d'habitude ci soirée bi ñu mën a xam naka ngay waye ak lan ngay way laataa mooy nuyu bu baax a baax ki nga xam ni moom moo di Fatou Cissé depuis Louga Thiara Bébé ak Mohamed Sarr de la part de Dieynaba donc Adja Adja Sarr Fallou Bari Cissé ñoom ñëpp ñu ngi leen di kontaanee may ñu beneen affaire ñu xool ci sa way parce man daaneel la gooma te dama bëgg ñëw baal si ngoon te ñi may seetaan bëgg nañu baal si Grégoire Euh, euh, ñu xool euh, lan la ñuy eh, eh, non non ko wax ni moo moom Pawlish ñoom du nii waaye non non kii yab naa la de. te yaa daa tegal clé bu bees bi nga xool ma yëngal fii rek. ah tegal cas bi nga xool. cas ban bu bees mais cas bi yónnee guñ ma ko xaaral ma jot ko kon mais léegi wayal ñu xool si sa si sa baat. ma naan El Hadj Agam boppam mooy séeri daba jéen ba mu jàppee ba tey bàyyiwul mbay jëy fay séeri maam Ndiaye cas. wol ma misaan doy séeréer looti TFM xam nañ yaay kan da nga jàppee ba tey bàyyi woo wol ma karambata doomu yaay papa laay sëñ Babacar wol ma Mika Dafe doomu yaay Xadi Seck day dimbalaate wol ma Kumba Gay mooy borom la zéo ba mu jàppee ba tey bàyyi woo wol ma xale yi faas dañ maa bëgg Medina ñoo may dooleel ba ma yegg si fii lii way ci soirée ah lii ngay way ci soirée déedéet mais lan ngay woy ci soirée. Eh, ba lu ci génne lu bees tàq Youssou dafa génne way bu bees yow nuuru laa yow nuuru laa bracket <laughs> yow nuuru laa xësa feccal nuuru laa lu bees la ana nampe bracket bi yow nampe yee seen bàyyi ñëw waaw waaw nampe yaa ngi noonu loolu dañ koy waaj a clip bento <laughs> lii tamit yaa ko way waaw xale yi dem palaas laal la ko après ñu tase la GIE lekk fa mbaxal ak ginaar saaf moo xew la GIE ñu dem place laal si saa yow xësa jamono ji xale yi la leen war a boole ñii dem place été bi ñëw ñu dem place te foo wax xale yi laal fa si saa foofoo xew été bi ñëwati xale yi dem place di sol lu gàtt teg seen si saa di waxtaan laal lakk jën kastanson ma wax la fe ñuy tase xësa deux la ñuy tase waaw waaw ma baal la su la baale dañuy ñaafal ñaafal ay simmeeku waat ndax xam naa ni yaa ngi ñëwal am yoo simmi ñëwal ni am yoo simmi tey la jeudi nii la mën a mel lu ma yaakaar lu ma yaakaar mu tas gërë <laughs> quoi bu ko faalee ne lu mu yaakaar tubéy yi dafa am yeneen tubéy yoo sol ñëwal nii Youssou Ndiaye <laughs> wala boo man kay may sa waay Youssou bul si maat dara de wala Youssou ku la jox daal yi bàyyi dem ba sañse mais ñoom nan la respecté waaye nan lay jox sañse ay sañse quoi ndax ñoom ñoom badu mi ak kara li ñuy sol duñ la ko jox nga koy sol ah nan nan la respecté ci sol ay waaye lan mooy sa amul ak jigéen ñi jigéen ñi lu ñu la toppee lan la beauté bi la taar bi la jantal gi nekk ci yow la wala lan la exactement taar bi la jantal bi la xam nga jigéen gel nga am Youssou ma taluma gel eh, saa bëgg dimbale yaay nekk sa soo bis bi pour am dara gele boo leen toppee doo dem il faut nga laa ko di tëgg say affaire topp nañ la topp topp nan la ñoom topp nañ ma ma leen instant eh, yi aw jox damay liggéey ah, xale yi ngi lay topp nan la Youssou dama bëgg dama la ma leen aw ma seen jox damay liggéey war naa am si kër yi war ah, a am si oto yi ba dimbali yaay muy dem ziyaare na bi loolu laa bëgg yaayam la ndeysaan lu ñu joué moom lañ koy jox keroog dañ def sama gars yi dañ def si ba am solo jël ceeb yóbbul meer mer gërëm leen loolay àdduna ñu def geste yi am solo jënd saako ceeb bi bari yóbbu gaale loolay xarit bañ jàppee tey bañ jàppee ba tey bàyyi ñu di leen di leen gërëm di leen sant. non ñoom kay biñ jàppee ba tey bàyyi ñoom seen ñoom gisee ah. ñoom seen ak ñoom Badou Seye la Ndeye Khady biiru. Ndeye Khady ndee xam ma sonal ci yow. sama xarit la nag daf maa bëgg. di ma dooleel rek. ku baax kooñee yaayam. yaay kooñe damay ñëw kër ga sax mu jox ma ndox ma sang. woyal ma leen ma xool. ma ne ko kooñe bu sëriñ Babacar séeri bàcc bàyyi ndey xadim la ñuy jooy suñu baaja dem na papa bàcc fa mu tëdd yàlla na gis Muhammadu Rasulullah jar nga ma weeru kaaraange falay lange si xësaalay lange jar nga ma waay jar kaaraange falay lange si dijee xësaa xale yi nee nañu yaa xew si jamono foo dem def fa bës ko ah neen dama nduroog Ouzin Keita dijo joraba loo deful baaxul yaa xew si jamono guddi tay joraba sa noon nalaw Sénégalais kontaan nañ ci yow de di ñaan jàmm yàgg rek gudd fan waaye bi ban heure la tey à part de minuit la minuit waaw ku teelu ñëw le jour ku teelu ñëw doo am place dégg naa guichet fermé nga koy def à chaque fois waaw entrée bi ñaata la tey 2000 la tey VIP 5000 tey ku teel a ñëw nag doo am place. entre 2000 VIP 5000. tey loolu te man Kheucha maa la war a présenté. waaw laajuma la dara. maay ñëw présenté la ba mu jeex ba pare jox la man. jeex na doomu yaay biisu ngoone. kontaan naa. waaw. dégg gis dégg naa ki dem bas ci ñëwoon na fa. sa xarit dem dañ dem këram mu yëkkati xaalis yu bëri jënd ticket yi. nit ku baax. moom ba mu jàppee ba tey bàyyiwul. ku baax la dem nañ dem këram mu yëkkati xaalis yu bëri loolu ku bon du ko def. ma kontaan si moom mu am jom. ne ma jàppal ak dina baax loo am joxal mais nag dañ la war dëgg nag nañ la bàyyi li la wax jàppal ci aar bi nii yow aar bi loolu nga ci mën a indil beneen tuus bu kii man dama la wax dëgg de balaa ngaa dem peut affaire yi ñëw de affaire yi liggéey la nag xam man gars xam nañ ma def naa clip ces mi ngi tëj dëkk bi ah. waaw ah ñu jàpp rek waaw nañ jàppale kon man ma bokk ci gars yi jàpp ma jàppale comme lu ngay doole lay waykat yi ah ma dooleel la dooleel la ñun fans yi ñoo tax ñuy sonn te am ngay fans yu bari am naa ay ñoo tax may reelal fans yi ñu tàggoo fansi yi jaral ngeen ma xeex jaral ngeen ma xuloo man de fansi yi laa am di nuyu nag Cheikhou Kouyaté sama joor bi di ko néew di ko bëggee ak am màngaan doomu yaay Cheikh ba la grand chauffeur màngaan nag oto laa bëgg nga may ma nag sonn nañ si taxi yi may ma 4x4 may ma si oto yi rafete màngaan nag may ma si ak jor caam jor nag borom tuddee bi tey du yomb joor nag may ma oto sonn nañ nag si taxi yi ak buur borom itali sama xarit ba buur di la bëggee doomu yaay Moussa Sène ah, am ngay géer buur sama xarit daf maa bëgg yaa ngi xaalis kon waaw rakk yu doomu yu si jàng takk ah. dafa boo demee même émission bi rek ak mi kaa dafe yaay xadi sekk <laughs> ak Kumba borom la sio kontaan nañ yàlla na sa jàmm ya mi nag kontaan pour ne pour ne pas te mentir wax dëgg yàlla euh, papi jot naa ay message yu bari ci jëmm ji wax dëgg yàlla ay Soko Jaañ ñoom ñëpp ñu ngi toog di sama xarit daf maa bëgg séeri Tijaan ah? waaye nag xësa bisu laa bëgg a jàkkaar lool conférence o bisu ngoon il faut boo jaaree fii c'est bon parce que c'est ici c'est la meilleure émission de la télé yaa fi na pas confrontation léegi mooy loolu man dama lay ñaanal nga yàgg fi rek ñoom bisoog bi taf kook dafa génn dem ñoom baleen loolu lay ñaanal ñu lay dégg fu ne <laughs> amiin si bakki sëñ Touba amiin yaa bi yow da nga am baax xale bu am jom xam lu tax ma bëgg ko grand <laughs> dafa mën lu muy def bu mënul woon du toog fii coomo du toog fii ah, xale bi dafa am jom nangoo liggéey xam lu tax mu neex ma lu mu am jëndee na ko sañse <laughs> doomu yaay Kéba Sock dëgg laay wax de man damaa fekkee bu joué fii ba bu defee émission dem na ut sañse xusaa daf ma bàyyi fàll la daal ndeysaan dugg si yëfu kenn di ko ñaanal doomu yaay Kéba Sock ak hélas keroog sama soirée moo ma sañse ah. ku man de suñ ku jox démb yére lu mu tudd. Iba Diop. boogaa boogaa nee na dina la solal. waaw démb daf ma defal teraanga jël yére yu bëri may ma. waaw. mu ne dina la solal yére xaaral mu ne. kontaan naa dina la sañsel yére yi rafet jox la ay daal incha allah sama xarit boobu. merci beaucoup. gërëm naa la maa ngi kontaan ci yow yàlla yàlla defal la jàmm rendez-vous ce soir fan la nga wax. ñu la tey sa guddi. ah Lazio. waaw en face police quatrième rek. waaw jeex na fa ñëpp dajee euh, na xale yu jigéen ñi ñëw xale yu góor ñi entrée 2000 VIP 5000 francs incha allah Badou merci beaucoup mbokkum yaay Diaw Ketchup maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax moom mooy lëg daawar mi ànd ak Diaw ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu Karamoto merci beaucoup à Ndeye Khady Ndeex maa ngi lay nuyu et toute la famille merci à Choco Diagne ñoom Kena ñëpp maa ngi leen di charé Abi Diagne Abi maa ngi lay la jox sa wàccuwaay parfois toi merci maman Mané merci Abel et merci beaucoup Grégoire ñi ngi looy teg rek ma tëj gaaw ma ne di nuyu Seng Seng nag suñu papa jooju taalibe sëñ Babacar jeex orchestre bi tamit nuyu leen ndax ñu mën ngoogu merci beaucoup merci beaucoup et rendez lundi prochain d'ici là passez un bon week je vous donne rendez-vous Rabbi s'il plaît à Dieu aux Parcelles Assainies Rabbi avec euh, un concert à vous couper le souffle les inchallah euh, euh, ce samedi merci beaucoup à toutes et tous et rendez-vous ce samedi et d'ici là passez un excellent ceebu jën un excellent poulet rôti ciao